yaa man qaala wa kaana xaqan alayna nasrul mu'minin wa kaana xaqan wa kaana xaqan alayna nasrul mu'minin wajjahtu kulliya bihamdin wa shukur ila waliyil mu'minin wa shakur wajjahtu kulliya bihamdin wa shukur ila waliyil mu'minin wa shakur assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi tey aljuma dëppook ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru décembre atum 2021 ñu ngi fii ci dëkk bi nga xam ne moom moo di kër baaba Coumba kër Baba Coumba nag dëkk la boo xam ne mi ngi nekkee ci ginnaaw Passy digganteem ak Passy daanaka ñaar jàpp ñetti kilomètre la ñu ñëwoon fi nag ànd ak mbooloo mi nga xam ne ñoom ñoo di daayira wakkaan xaqan ci màggal gi nga xam ne at mu jot dañ koy amal ci dëkk bi di bisub cant bisub fàttaliku di ndigal loo xam ne nag mi ngi bàyyeeko woon ci sëriñ Saalihu Mbàkke yàlla na yàlla yokk ay leeram te taasu ci barkeem mu joxoon ko sëriñ Issa Cissé mu nekk màggal goo xam ne at mu jot dañu koy amal ci dëkk bi ndax première édition bi ñu ngi ko ameloon ci atum 2005 loolee nag moom la mbooloo mi di wéyal ba tey jii di màggal ak cant goo xam ne waa daayira Wakana Haqqan dañ ko ànd ak mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi tàmbalee ko ci xalifa bi nga xam ne moom moo di sëriñ Abdul Karim Cissé di xalifa njabootug sëriñ Babacar Cissé mi nga xam ne mooy waajuru sëriñ Ibrahima Cissé sëriñ Cheikh Cissé ak sëriñ Issa Cissé mi nga xam ne ndigal li ci moom la wàccoon bàyyee ko woon ci sëriñ Saalihu Mbàkke daañu demit ci kilifa yi nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bi muy sëriñ Mouhamadul Bachir Cissé di xalifa sëriñ Issa Cissé ak sëriñ Ibrahima Cissé di xalifa sëriñ Cheikh Cissé ba ci sëriñ Mouhamadul Amin Cissé mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Ibrahima Cissé fenn fu ci ne daañu fa taataan kàddu yoo xam ne daañu ko yëkkati mu jëm ci bis bu màgg bi nga xam ne moom la ñu amal at mu jot ci dëkk bi nga xam ne moom moo di kër baaba Kumba bi ñu xëyee nag amal nañ ci dëkk bi njàngum alxuraanul karim mu yaatu moo xam ne def nañ ko àddiya yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ñaanal ci mboolem kilifay diine yi ñaanal ci it ñi nga xam ne dañoo jiitu ji ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñaanal ci it mboolem ñi nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bi noonu it lañ ko amale ci njàngum xasida gu yaatu goo xam ne diirub journée bi ci dëkk bi dakkul benn yoon wa bikulli mu'minin wa kulli mu'minatin awsil busaaratin li safwi mudminatin mudda li kulli muhsinin wa muhsinatin ala busaaratin turaa mustahsanatin wajjali ummati rasulillahi alayhi xayru salawaatillahi madadamam matee yaqul ku yakuni yaa man yukawwinu mu nan lam takuni ناجيتك اليوم بحمد وشكور بالمؤمنين يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون حادي منك بلا حقد ولا تحاديم نفيت إبليس لغيري أبدا في شهر ذا وكل من لم يعبدا واجعل من قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا مقدر من لم يسلموا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 Cheikh Abdoul Karim Cissé. maaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala ñu ngi leen di nuyu góor jigéen mag ndaw ku sori ku jege mbooloo mi yëpp ñu ngi leen di nuyu nuyu ba gën a rafet gën a jot te mooy juróomi baat yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa leen nuyu di leen delloo nuyu. ñu nuyu leen gannaaw bu ñu leen delloo nuyu ba pare ñu nuyu leen militant waaw bis bi day euh, ko ñàkk a fonk ndax dafa jógee ko ci si dafa jógee ci Cheikh Ahmadou Khadim saa hmm, ñu gisee ñu ne Cheikh Ahmadou mooy moo ko fi nekkaloon jox ko suñ mbokk Ibou Sañaan mu indi ko fii jox ko sëñ Essa ñu di ko màggal mu dem bàyyee ñu ko boole koog itam nag battale xoon nañ ko ko toppatool suñ ko ko toppatool yi di dana am ñu ñeneen ñu ñëw toppatool ko ko te loolu ku nekk xam na ne mu ngi am ndax ñu rek nekkuñ ci dënd bi dafa am ñu fi fekk te jógee ko fi ñoom ñoom ma fi bokk ne bokkaana nag ku ne xam ne ne xasaay di bëri nañ lool waaye benn la ci boo xam ne ci quraan yooyu la bokk te sëñ Tuubaa li mu doon liggéey ku ne xam na ne fulku ak quraan ya ca xasaayit yi gën a màgg ci xasaayitam yi ci la bokk mu dellu ko defeeti ci barab boo xam ne Mauritanie lañ gën a siiw ca la ko defee dafa bokkoon ci place yi nga xam ne am na am na mission bu mu fa doon dox loolu laa toxoon mu deferee ko foofu su fekkee fa la ko deferee boo gisee nim ko defee ni ko ràbbee ci alquran da nga xam ne xasaayit gi ci gën a mag ci la bokk soo seetee itam nam ko wóoyee ak nam ko defee lépp ci xayul xayum la ko ràbb bokkaana àqal amul daraam lu génn ayul xayum ndax moom la ko tënkee ci njëlbeen gi moom la ko mujjee ci mujj dafa fekk nag tuddut ayul xayum ci nas bi nga xam ne moom la ayul xayum wàcce ni ko xayu xayum waaye yim def soo jëlee seen simaam yi du la jox lu dul ay xoyom nga xam ne kon ba mu ko tuddee ca kanam lim junjoon ci kanam ci gannaaw njëlbeen ga moom la mujj tudd ko boo demee ca mujj ca bëy dee ca gannaaw ca mujj ga am na fu mu tudd ay xoyom yaa ya xoyomu googa nag lim dalee fii la wa kaana xaqan alay naan nasrul muminina tënkam yi ayul xëyoom la yeneen yi ca seen tënk ay xëyam ndax tënkuwut ci benn façon dafay demee droite ba mu yàgg mu dikk gauche te loolu ko ne xam na ne baatu alxuraan noonu la defee dafa wax ak xaraf yi alxuraan dafa yàlla dafa waxee xaraf waxee baat waxee lim ko defee nag ci loolu ci nga xamee ne kii lim junj fii soo ko seetloo te xam ko moom la leeral foofu waaye diggante bi nag distance bi noonu la secret demee nag secret kenn masu koo jël ko fàng ci biti wala ku ko def xamoo ko danga koy junj soo demee ba nga xam ne sori na nga xoddee ko ko door a tudd baat bi ñu xam ne lii danga ko tuddee ni bis mi xoddee laayi waaw ku ne xam ne ni bis mi moo xoddee laayi ndax laayi deesu deesu tëb dal ci koom dégg màggam ba ñu indil ko bis mi lu demee noonu nag moom la def wakkaana wakkaana ji nag sëñ bi waxoon ci lu am solo donte kon nag dañuy wax ne am na ci ñenn borom xam-xam yi ñu bari ñu wax ne euh, bisu wenkaat kenn waru koo màggal kenn waru koo def dara waaye man yaakaar naa ne bisu wenn wenkaat mooy yàlla gi nga xam ne Europe ak euh, asiatique yi ñu ngi ko cee mooy yàlla nit ku ci tànn bis yow di di ko jaamu yàlla ndigal yi ak tere yi ba koy ñetteel mooy sellal kenn mënu fi jëlee dara ci lu jubal ak sellal jubal nag sellal la koy tax a développé boo jubalee sellal bénéficier képp ku cee def lenn lu mu néew néew néew xéene ko door koy def soo ko xéenee def ko dañ la fay fay xéene fay la fay jëf te Moussa Ka dafa wax ni xéene moo xëpp ak jëf ca bëyit ba muy waaw ndax dafa wax ba mooy mooy misaal sëñ Tuubaa te boobu xam nga kenn gënu koo doon werekaan ca werekaanam wu rafet wa ca la waxee ne ab liggéey mooy Maamoor Jaara xéene jaay Bàmba xéene moo xëpp pay jëf gannaaw xéene moo xëpp pay jëf nag baat boobu nag moo moo mooy sekkareb bi xéene moo xëpp pay jëf waaw bu xéene ëppee pay jëf képp ku cee def na nga fexe ba yéene te la def nga fexe ba mu tegu ci yoon jëf yi nag li ci teguwut ci yoon dafay bari waaye dafay war a pertement nañ fexe ba balaa ñoo jëf ñu yéene suñ ca tegee jëf ju ju sell yàlla danañu ko nangul nangu yàlla gi kan moom dafa am sart yu mu koy teg doog a nangu am sart yu muy teg soo ko wàccee du dem ndax nit mën da am dara te lum sabab luut sëñ daara alaaj sëriñ de daan wax ne su ma xamoon ne lii lañ maa fayee du ma ko fekkee su ma xamoon ne lii lañ maa fayee du ma ko fekkee ku fa nekk ku ne dégg nga mu wax ko dëgg lu dul jeex du xaj ci dëmm ba mooy tàng waaw saa yu nit ñi liggéeyaan ba wàcc mu toog xool mbooloo mi ni ñu liggéey mu toog ko xool ko xam ne moom kenn moo daan liggéey junne nit dikk ci toolam di ko liggéey lu mu wax ñu def lu mu tere ñu ba su fekkoon xamoon na ne noonu laay demee du ko fekkee loolu fa la loolu moo doon ba loolu la daan wax waaw kon nag ñu fexe ba sellal ko te kenn ku nekk xéene la mooy def donte ko nag yëkkati potam ndox da ko jox nit it xéene rek ne maa ngi def nangam nangam nangam maa ngi xéene nangam na waa ahlu badar lañ xam mu jëf benn jëf yéene ci loola loolu man fekkee naa ko te xam naa ko kooku moom lu ma ca wax ay sëriñ lu ma ca wax moom dama ko dama ko dund ndax dama ko fekkee te booba euh, xale laa te daan mu fàtte salaamaaleykum wa rahmatulah di xalifa sëriñ Aïcha mi nga xam ne moom la sunu borom dogal si bii sunu borom jaarale ko ci ay loxoom ba mu tey yegsi fii asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw bis moom ñun ñëpp ñoo ko gis muy lu xëy judd ci sunu kanam meññ ci sunu kanam ñor ci sunu kanam gisewuma ko dara nag lu dul bisub liggéey bisub jom bisub fulla bisub fayda ndax mbooloom lislaam ku leen di dajale mbooloom lislaam ku leen di dajale war a def dëgg tey lim doon doon bi si jumaa ñëpp ñëw nañ àll bi boo xoolee lépp nit la julli ne jëm si fii kon waruñ fii daje ngir bakkan waruñ fii daje ndég bëgg ku la gis man de lii jamono ko xewal sax mais neexuma ndax tey ñi jëf-jëf ji eh, màggal bis bi kenn laaju leen ndax man kese bu ma fi nekkoon kenn dikkut kenn duma laaj ndax dara ji doo am kon mbooloo mee dara ji kon laaj gi moom tey man li ma jàpp sax mooy nit ñi lañ waroon a laaj parce que ñoo waral bis bi ak cant rek man daal ak cant dale ci ak cant laa te di dénk sunu bopp dem liggéey nangoo liggéey am jom gëm suñu wayjur yi man mi ngeen di wax naan xalifa Essa Maram duma duuma ko man taalibe Essa doomam laa duma xalifa yutuuma daraay xalifa soxlawuma daraay xalifa li ma gëm daal lu suma bàyyi tegoon tànkam tuddoon ko ci làmmiñam bu ma deew danaa ko def bu ma ci dara fekk nag waaye xalifawuma xootewuma xaareewuma kon yéen ñi ma ko siqat nañ fu teeku liggéey tey def dëgg tey wax dëgg ndax bis bii ku xool ni muy doxe ku ko ŋànk te te tegoowoo ci yoon dana di ci sa loxo yi adduna bi yëpp a ngi fi te am na jàmbur yoo xam ne dimanche lañ arrêté seen liggéey yi dikk toog am na am na jàmbur yoo xam ne dimanche lañ jël seen oto yi indi gaare pour liggéey dimanche nag ba ba samedi boo boo boo ko calculer xam nga ne yow mi ko woote defoo ki dikk def loolu moo def kon ñu ngi sant ñëpp ci taxawaay bi fi ne nii am naa ñu jógee muritani am naa ñu jógee Gambie am naa ñu jógee Guinée-Bissau am naa ñu jógee Touba ak délégation yu jóge Dakar ñoo ñëpp yi bàyyi nañ seen tey ki nekk ci biir ay six heures du matin la ñëw mu nga tëj maa nga si ne ànd ak liggéeykatam yi nayut kenn mu ngi kafe fii ci soo ba tey di joxe kon bu boobaa man ni fekk si jëfal ma lool bu ma naagoo xaw ma li may def ma bis bii du noosukaay bis bii du fowukaay bis bii du yaafusukaay bis ni ki tey buñ buñ ko tëjee takkaat naa sama dàll ak sama ndigg fas yéene wanehaat ko ngir cofeel ak sama baay ga jamono yu mu joxee gannaaw ba nit ñi ñibbi rek takk naa rëdd naa li may defaat balaa bis ba bu ma ca amul ngërëmal yàlla it am ca ngërëmal sama baay lu ma ca fekk baax na ndax bëggoon na ko daal te mooy suma waajur kon nag sant nañ leen bu baax yéen it seen taxawaay rafet na bëgg bis bi muxtaaree tax ngeen def lii bëgg mu ànd ak jamono tax mu def lii waaye daal lu ma la mën a xewal waxal mooy nañ am jom nañ nangoo liggéey nañ am kilifa. nañ xam fu ñuy teg suñ tànk nañ xam ni ñuy defee nañ xam ni ñuy waxee bu boobaa dañ daje ngërëmal yàlla dañ am ndimbalal yàlla bàyyi leen ko xel bu baax 2005 la bis bi commencé fa mu déparé woon ak fi ma ak si xam ngeen ko gërëm naa leen bu baax gërëm samay rakk ndax taxawaay bii ñu taxawuma kenn amu ko naa koy wax te ma koy wax li ma rakk defal kenn ma su ko defal mag ndax tey Modou mii topp ci kaw at mi daar daara wàccee mu andil ma addiyaam ma wan ko ca yoon cele la jëlloo ba at bu jot lu ma jox ren bu déwee ni mu ëpp ko at bu jot mu jox ma gëlëm te du ko tudd fu mu leen du fa jaar loolu ndimbal lu ko toll kenn ma si ko gis maa ko fi ma sa rakkam ma ko mas a defal bañ bañ sancee Sénégal Saalum ak tey maa ko fi am te rakkam a ko defal kon sama rakk yi kenn xamu ko waaye nag lii ñu ko may de mooy gëm suñ baay yi xoolu leen te doon xool niñ doon doxee gërëm naa samay rakk gërëm naa jarbaat yi gërëm naa dëkk bi gërëm naa réew mi amul benn dëkk bu manqué li ko dale fii bëkk laayin soxna mboolem fu mbokk nekk ñëw na boo duggee oto kër ga jàng fi taxaw bamba dalaa ngi fi taxaw kër yib kaa ngi fi taxaw oto Banjul yaa ngi ci biir Saalum gépp a ngi fi kon nañ leen sant gërëm dëkk yi yëpp am nañ juma tey ku sëlmal tegu ci yoon amul luñ mën a fayee nit ñi lu dul yëg leen ak saafaanteeg ñoom ak kontaan ci seen kanam tekki wuñ dara lu ñu am nit ñee ñu ko jox te baxee ko li gën a neex ci joxe mooy jox la baxee la ko te loolu la ñu ñëpp defal sëriñ bi biñ fi jógee ak léegi dox na lool te nit ñee ko doxal nañ gërëm nit ñi sant naa de man sant naa bu baax gërëm naa bu baax gërëm naa yàlla bu baax a baax a baax a baax gërëm naa it way juri ci suba wax naa lu doy waar dama leen ne baa maay gërëm yàlla sax di dina naa gërëm sama baay ndax nit xam na baay xam yàlla te ñàkk sa bopp nit xam na baay xam yàlla ñàkk sa bopp kon nit bu amee bu amee yàlla bàyyi ko ci dimbali kon nag gërëm naa sama baay naa sama baay nag moom mën naa gërëm yàlla yàlla nañu ko yàlla fayal mboolem ko fi dikkit yàlla na sunu borom fay la way jiitu yi na sunu borom jéggal leen yéen yi seen taxawu yàlla na sunu borom yokk leen koomu adduna mi ngeen bëgg yàlla na ko sunu borom yombal jàngalekat yi xaraf xam le yàlla na barke liggéeykat yi lu ñu xam yàlla na barke ku fi dikk yàlla na sa njëggal ku fi dikk yàlla na sa ubbeeku ku fi dikk yàlla na sa wér yàlla nay xatam jàmm yàlla nay xatam xiwal yàlla buñ bokk ci njàmbat li yàlla buñ bokk ci nattu yi yàlla buñ bokk ci feebar yi barkeb sëñ Bamba jërëjëf kon mbokk yi noo ngi fii ci kër Serigne Cheikh Cissé di doon kilifa gu màgg ci dëkk bi kon tey xalifaam di Serigne Ibrahima Cissé moom dañuy jox kàddu gi mu waxtaanal ñu rek wala soññi ci minute yu gàtt. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaara di rafetlu jotaay bi te di leen masawu coono xam naa ci lu kaddu rek comme noonu ko Cheikh Mohamed waxee moom di suñu jarbaat di am di doon doon ko am taxawaay ci kër gi wax dëgg yàlla tabaarkalla comme noonu mu ko waxee nes koy màggalee te teg ko ci na dañuy wax rek ci li bis bi wund mooy wakaana xaqan alina nasrul muminin waaye dañ koy commencé ca bopp aaya ja le sun borom waxoon ne wala xad arsalna min qablika rusulan min qablikum ila qawmin fa jaahum bil bayyinaati fantaqamna min allazina ajrimu waaye wakaana xaqan alina nasrul muminin dafa wax ne damaa yebal ay ndaw ci kaw suuf ngir ñi leeral dëgg ñi indi dëgg waaye am ñeneen ñu nekk ca wet ga mel ni ku bëgg a xajamal loola waaye suñu borom digg ne ku teg tànkam ci fa ma ko teg fa ma ko ko tegloo kooku dinaa ko dimbale kon ndimbal loola ñun ca la ñu nekk moo tax bee ñu ko commencé ba léegi ñi ngi ko teg ci jàng alquran ak jàng xasidaay Serigne Touba yi rawantina xasida googu di wax kaana xaqan alayna nasrul mu'min ak la mu ëmb ñi gëstu ñëpp xam nañ ci lu bare bëri Euh, foofa rek fa lañ teg suñ tànk la sëñ Tuubaa waxoon ca ba muy tudd màggal guddi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax taasimuhu bi sunnati yaquduna na jannati kon suñ bëggee ñun suñ borom wamatalee ñu ci jëmeel ñu ca këram gu tedd googu dañ koy tekki sunna tey dëkk bi sunna dong moo fi jàppale nit yi parce que lu fi daje saay bu ëppee ñaari nit rek nañu xam ne jotaay ba alquran dong nga tax su du toon alquran dëkk bu wéet lay doon parce que xam ngeen ne kër yu tuutee fi nekk lu néewit mooy ñi fi juddoo te nekk fi leneen li fi yokk yëpp te mbooloo mosu fee jog mbooloo mosu fee jog mbooloo mi yëpp nag jàpp ci la yàlla waxoon moo bi abdillahi jami'an moo fi dajale mbooloo mi mooy alquran ak sunna ku fi ñëw loolu moo la fi indi xame gi moo ko indi lépp lépp lépp lépp lépp xamee ak lépp jëfit ñu ngi ko teg rek ci loolu alquran ak sunna bu mën a jëriñ seen bopp waaw te lépp dëppook sunna kon foofu lañ la ñuy wax rek kenn ku nekk loola ñu la jàngaloon teg ci sa tànk incha allah daa jëriñu kon yal na yàlla kattanal leen te ubbi leen fa ngeen bëgg a yegg sunu borom yal na leen yeggale fu kawe seen njorto barkeb alquran barkeb Cheikh Ahmadul Xadim rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi no ngeen ñu toppee woon ci suba ba léegi rek ñoo ngi fii ci kër Serigne Cheikh si sunu jawrin sëriñ Moustapha Ndiaye xam ne mooy jawriñu kër gi. bismillaahi rahmaani rahiim asalaatu wasalaamu ala rasulillah ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaar di leen balu àq di leen baal àq di ñaan bis bi yàlla nañ ko teewee ay xat yu bëree bëree bari ci jàmm ak sago ak tal ah, mm, xam naa su ngeen ñu laajee ci kilifa yooyu moom ah beneen ci sawar lu lool ci tontu ci ndax ba ñuy doon ay tut tànk lañ dëkk ñoom ba léegi bañ dem bàyyiñu ñu naa di leen ñaanal suñ borom yokk seen leer rek te saxal seen jéggal jaay seedi lu jot bis bi itam ñuy ñaan yàgg koy def lool ci jàmm ak sago ak tal te lépp luñ ci yëngoog luñ ci dal yàlla nañu ko suñ boroom nangul di jaay seedi naam sallallahu alayhi wa ñoom nag seenub dund moom la ca euh, gën a am solo mooy bennoo waaw bennoo nga xam ne kiy kilifa moo nekk ci kanam ñi ci des ñëpp topp ci gannaaw amul benn werante seen diggante waaw mosuma gis ci sama dundak ñoom loo xam ne nijaay euh, saa mi doon kilifa gi wax na ko ñu teg ca benn baat lu jëm ci euh, jéem a euh, soppi ca euh, kàddum dara lu dul jëfee rek ba loolu taxoon na ki nga xam ne moo doon Serigne Issa di kilifa gi ànd googu ñu àndoon ak moom ak kilifteef googu ñu joxoon ko taxoon na ba lépp lu nekk ci kanamam rek ñeme na koy song ndax xam na ne lum mu song am ca ndam loolu nag euh, bu ngeen ma ca laajee xam na ci lu ma ci dund lu baree bare baree baree bëri ndax bu laa woon ci seen ron nekk fi ba euh, tey ñu bokk ci mag ñi ndax buñ ko waxee itam léeg-léeg nga dégg gune yi da wax ne dëkk sàngam mag ña jeex nañ gune yaa fa des fekk ñañ jàpp ña fa nekk ba ñuy doon doon ay gone ñañ doon wooye ay mag seeni at toll na foofa kon su boobaa euh, manees na leen a wooyee ci magi dëkk ba kon tey ci ñooña la ñu yàlla boole ñu ngi leen di sant nag di leen gërëm ndax yoon wi ñu tegoon te ñu nit ñu bëgg ngeen tegee ca ndax la de suñ ndam mooy fañ ñu tegoon ñu man leen faa teg yi nitam ba ngeen mën a saytu ci suñ kanam dara du yàqu waaw loolu moom wax dëgg yàlla moom su ngeen ñu sa laajee moom sawar nañ caay tontu lool sawar nañ caay tontu lool di sant ñëppi nag di gërëm ñëppi nag ndax am na eh, ci bennoo boobu ma lay wax mas naay toog ak ku ñuy wax jim caam ñu gën koo xam ci jim yata mu dëkk Kër Maat dañoo toog ñoom njaasi ak eh, njaasa daje ci jàkk ji julli génn toog ci ron mango gi mu ne ma Moustapha ma ma ah, mu ne ma xoolal ñële ma ne ma ah, mu ne xam nga lu ngeen manee réew mi ma ne ma ah, mu ne ma ñaar ñële la ndax ñaar ñee luñ fas mooy jàll waaye yeneen dëkk yi ci des mm-hmm. ay mag bu ñu dajee fas am na ñeneen mag ñu koy teppi wala am yeneen gune yu ko ñemee tepp ñii nag loolu la leen yàlla dimbalee loola nag moom la ñuy ñaan yal na suñ boroom dimbali ñu ba loolu continuer te bañ fiy jóge ko ñu ciy dolli mooy sant leen rek ak gërëm leen ndax fi ngeen teg seen tànk foofu la bu ngeen ko teggiwut sa kanam ngeen jëm ndax yéen a ngi góorgóorlu di dajale seenu ñaq mu jaral leen ngeen woyof lu ba mhm. da dem ci marché yi ci fa nga xam ne seen i morom a fa ne mhm. ngeen euh, wàcc ci seen suuf mhm. ngir bis bii ngir ñu jox leen lu ngeen indi ci bis bii loolu moom euh, na ngeen ci yokk góorgóorlu beneen bi ma ciy tegit mooy lépp lu ngeen ci def lu mu bëri bëri bu leen ko naw ndax nit lu mu naw dootu ca teg dara <laughs> waaw da leen xeeb bu leen eh, eh, ragal ne mm-hmm. bis dana ñëw mm-hmm. su ngeen góor góorloo ci te delluwu leen gannaaw mm-hmm. bis dana ñëw lépp lu fi nit di def dootu ko def daayira bee koy def te loolu nag la mën a amee mooy lépp lu ngeen def xeeb leen ko waay bu leen naw waaw ndax nit lum naw dootu ca teg dara di leen xeeb li ngeen di def waaw te te bëgg mu yokk loolu daal bu ngeen ko defee moom itam fa ca kanam rek insha allah kër sëñ Ibrahima euh, toogoo xalifaam sëñ Mouhamadul Amine Cissé ñu fas yéene taataan fii ay kàddu yu am solo rek. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. mbokki taalibe yi mbokki julli ñi ñoo ngi leen di ziar bu baax di leen muy te di leen jaajëfal di leen baala àq te di leen baalaa àq ci liggéey bi te ñaan suñu borom defal ñu tawféex te nanguñu te gërëmal ñu ñoo soññe gi ñoo ngi koy tàmbale ci suñuy jëmm. ñu ko yaatal ci képp koo xamante ni ne yàlla bind na la nga doon ab jullit cant gi ñoo ngi ciy jiital suñu waajuru góor sëñ Abdou Karim Cissé di ci teg suñu mag sëñ Mamadou Basir di ci teg sëñ Moustapha Ndiaye di ci teg suñu doomu baay yi nga xam ne ñoo ñu fi nekkal ñu mel ni Baye laa ak biraan mm. Babacar Touré mm. ñëpp rek sëñ moodu mm. Ablaye ñu ngi siyaar ñëpp di baalu àq ñëpp te di leen baalu àq di leen baalu àq ñaan suñu borom defal leen tawféex kàttan leen yokkal seen saayir seen baatin kenn ku ne li nga man ren ba def ko suñu borom ko ëpp déwén ñaan yàlla def fi jàmm def fi jubóo ñi nga xam ne yéen lañ àndal liggéey biit ñoo ngi leen di sant di leen jaajëfal ni ma ko waxee ñoom Isa ci suba ne naa leen bis bi de kenn ku nekk mën na koy jaajëfal moromam mm-hmm. waaye nag ñun moom war nañu toog sant nit ñi dégg ko. Mhm. ndax lu ci ni def lu ne ñun la war. Mhm, mhm. gannaaw ba nga xamee ne def naa sama mm, sama kem kàttan. keneen ak keneen def kem kàttanam. lu ci desoon lu ne it tutee ñun lay war. kon su ngeen dajalee seen kàttan ak seen dooleeg seen temps ñu indi ko fi. xam ne ne ñun ngeen ko jébbal. ndax dërëm bi nga andi dugal ko boo ko andiwuloon moo war koy indi. ndax gan ñi ko war a gan ñi ko war a jëfandikoo ñëw nañ ba noppi yàlla tàggat na leen ñëw nañ def na ko ba noppi mm-hmm. te ku andi nit ku ne jox ko mu lekk mm-hmm. kon su ngeen ko andi ma war koy wuti mm-hmm. sëñ bas war koy wuti keneen ak keneen war ko wuti kon su ngeen ko andi ñun ngeen ko andi temps bi su ngeen ko defutoon ñu war koy def futteeku liggéey bi su ngeen ko defutoon ñu war koy def loolu lépp ku la ci wuute aw la ci ba noppi jàppale ci te di ko xeeb te di yéene muy jëm ci kanam loo ko loo ko fay doyut kon ñoo ngi leen di jaajëfal rawatina daayira Wakana Haqqan bii seen daayira bii nga xam ne am ay ndaw ñu passeefu lañ ñu bëgg lu baax waaw ndam seedal naa leen ndaw ñu passeefu ndaw ñu bëgg lu baax bëgg ko lool sax moom xam naa ko ci waaye dañ leen di bàyyee yàlla rek mm-hmm. ak barke mag ñi nga xam ne mm-hmm. ñoom ngeen àndaloon mm-hmm. ñii ay sët ñii ay jarbaat lañ ñii ay taalibe lañ fii daanaka boo xoolee ñi fi ñëw kenn du fi jàmbur daanaka kenn du fi jàmbur ndax ñoom xàmmiwuñu woon jàmbur nga ñoom ki leen xam daanaka moom la ñuy gën a fonk ci ki ñu tuddee jàmbur ki ñu tuddee mbokk moo tax fii daanaka amul jàmbur ñëpp ci lañ bokk kon ñu ngi jëfal ñëpp di sant ñëpp di leen baalaax te di leen baalaaxu di jéggulu ci kàddu yi bu baax a baax a baax di ñaanal si Abdou Karim yàlla yàggal ko fi lool moom ak sëñ Basiru ñi nga xam ñoo fii suñu kilifa yàlla yàggal leen fi te jox leen wërsëgu yaatu lool ndax seen yéene yaatu na lool luñ def rek mënuñ ko waaye amul lu seen xol yi ci lii yal yàlla barkil ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf alhamdulilah. ku ne cant ak màggal ne bernde moom moo tax waa daayira Wakana Haqqan ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom lañu àndal bisub cant gi ak màggal gi waajal nañ ay bernde yu yaatoo yaatu yoo xamante nii képp koo xam ne ñëw nga ci bis bi berndeel nañ la bernde yu mucc ayib. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi fii ci waañ bi nga xam ne ñoo fi représenté daayiratu Wakana Haqqan di nuyu ñi ñu ko seqal ñëpp waaye di nuyu bépp membre bu ne ci biir daayira bi ak bépp responsable boo xam ne yaa ngi ci biir daayira bi ñoo ngi nuyu ñëpp di leen jaajëfal ñu di ci liggéey liggéey bu am solo boo xam ne ñu ngi koy liggéey waaye ci ndigalul suñu kilifa ñu ànd ci ak it nag ñi nga xam ne ñooy suñu kilifa ci bis bi nga xam ne ñoom nañ ci fekkoon ñu di ko liggéey ba daayira bi ñëw fekk ci leen ci ñu ànd ci ak ñoom fii nag mooy waañu kër sëñ Cheikh yàlla def ñu jiital ma ne may jëwriñ ji ma lott ci lool te góor góorlu rek mais nag sama xel dal na soxna yeeg xale yeeg donge yeeg magi donge yeeg suñu papa yeeg ñëpp ñu ngi si gannaaw di ñu jàppale ba 10 août man na ma wax ne sama xel dana si woyof na lool gëm naa ne manque moom du am xanaa des te itam noonu lay demee fañ ko tàmbale woon ci ay ganaar mu def bëy ba ay nag di fi daanu lépp rek ci liggéey ak borom kër gi la ak ci barkeem bi nga xam ne taas na si njabootam gi mu mën di ñu wéyale bañ def effort yii. Ah, fil instant yi de ñu ngi si juróom-ñetti mbana ñu ngi si juróom-ñetti mbana si añ bi dañ ko taal reer dañ ko taal ndékki demb lañ commencé togg kewal di joxe dañ ko def démb incha def nañ ko démb dañ ko def tey dañ ko def suba ñu ngi fi ba gan ñi ñëpp yeewee ko luñ am ñu defal leen kewal yi ak berne. xanaa góorgóorlu rek waaw góorgóorlu rek takk suñu digg rek liggéeyal yàlla kuy liggéeyal yàlla moom doo mukk ki nga xam ne moom boo ko lebalee benn mu fay la nga lebal ko fukk mu fay la téeméer mm-hmm. boo koy boo koy lebal moom bul taay mm-hmm. te moom du fàtte kon nag nañ sant ah di gërëm di ko sant borom di jiital suñu way juri di leen ñaanal bi waaw ah, su ma wax sa bareetu ci ndax sëriñ Lamine Gaye wax na li ci war a wax yëpp ba pare kon li ci des mooy sant rek di ñaan borom bis bi yal na yàlla mottali di ci des dañ teewe ko ay déwén ci barke alquran barke yaa Rasulallah. maanaam di leen xamal ne tey jii bis la bu nga xamante ni wax dëgg yàlla bis bu rafet la bis bu baax la te aussi maanaam ki nga xamante ne mooy kilifa gi nga xam ne moom lañ ko parrainé muy Babou Cissé moom wax dëgg yàlla ar bu nekk. Tijaan la woon wax dëgg yàlla waaye kontaan na ci lool heure bu nekk mu kontaan si heure bu nekk mu kontaan si ba yàlla def mu lii mu am moom ci boppam nag daf laa wax ne lépp lu ñuy def na bëri te teel lépp lu ñuy def na bari te teel ci kàttanu yàlla loolu yëpp mun naa ba mu fi bayee ko ba léegi ñu ngi ci ba fu ma waxee yow fu ne añi pare nañ fu ñu toll nii añi pare nañ ndekki yi pare nañ añi pare nañ moom nag wax dëgg yàlla ku bëggoon diine rek moo ko ñoroon dara ñor ko loolu diina wakkaana gi nag ñu nekk nii léppam moom la woon léppam wakkaana gi la ko joxoon ñu fi bàyyi itam wax dëgg yàlla farlu nañ ci di doomam Ousmane Cissé ak ay ak ak i rakam ñoom ñëpp farlu nañ ci ñoom ñëpp farlu nañ ci wax dëgg yàlla te la leen paa bi bàyyee woon lam leen dénkaan lam leen dénkoon ba léegi loolu ñu ngi ci wàññeekuñ ci benn yoon wu ci benn yoon heure bu nekk ñu ngi ci. waaw ñu nag wax dëgg yàlla Pastef am na fi Pastef bi li tax mu am fi mooy daayira yi ak soppe yi teew nañ fi jëmmal waañ bi boo xoolee diggante dix heures ak une nga samb fi ñaar fukki mbana ak ñett si diir bu gàtt lépp parendoo instant yi nii yekk añi rek moo des si lu matul ñaari waxtu jàpp ñetti waxtu loolu pas-pas mënu koo weesu. 23 mbana lañ teg yu nga xam ne ay xéwal la pour jaamu yàlla yi fi ñëw ñu fas yéene ko xéwaloo. ah soxna yi moom seen taxawaay rafet na macha allah ñu ngi góorgóorlu ci liggéey bi am nañ pasteef bu baax daal kontaan naa ci seen taxawaay boobu. Euh, wakaana gi nag moom daa nekk bés bu màgg ci ñun bés boo xam ne sunu bés la ndax mooy sunu màggal ñu kontaan ci lool di ko waajal ci jëf ak ci liggéey ak ci bun lu nekk rek ñu ngi ko koy waajalee daal ci jëf ju rafet. wàllum organisation carte soutien carte soutien yi ak carte barkeelu yi ñu ngi ciy ziar ñëpp nag di wax képp ku ci dugal dërëmam yàlla na ko yàlla ful def ko ay millions ak ay milliards milliards ziar na ñëpp nag jox ñëpp seen wàccuwaay. waay taxawaay bi xawoon na metti mais yomb na tamit ndax am nañ suñu benn mbokk taalibe bi nga xamante ni moo koy liggéey mi ngi nekk ba soo euh, Sokone. mu ngi tudd sëñ keebaa caam ñu ngi koy sant tamit bu baax ci xéwal yi ñu defal ak tawféex gi mu ànd ñun ci bis bii nii nga xamante ni lépp bu ñëwee da koo wàññi ko euh, daf le sant nañ ko si bu baax di ko gërëm ndax métti woon na ndax ñu ngi doon xelaat ne fan lañ mën a defaree carte dëkk bi gis ngeen ni mu mel amul fi ñuy defaree carte soutien amul fi ñuy defaree carte barkeelu mais sant nañ yàlla bu baax ba ñu amee mbokk taalibe bi nga xamante ni mën nañu comprendre ci loolu noonu dimbali ñu si bañ mën koo defar ci jàmm te sonn ñu si waaw ñu ngi ko siy sant moom tamit bu baax di ko ñaanal liggéey bi yokku ci barki Seydina Mouhamed ci barki Serigne Touba mi nga xamante ni tey moo waral li yëpp am ndax boo gisee dëkk mel nii nii rek la war a mel ndax defe naa ñu fi nekk bu la àdduna ñoroon xëy na dëkk bi dina am lépp loo xam ne yeneen dëkk yaa koy am ci wàllu àdduna waaye liggéeyal sëñ bi moo leen ñoroon te naa ne lépp lu ñu am jaay nañ ko sëriñ bi moo dëkk bi melokaanu Touba dong la war am. mu doon taxawaay bu am solo boo xam ne taxawaayee nañ ko fi muy ci wàllu liggéey bi lu jëm ci waañ bi ak wàllu ndox beeg yëpp daayira baa ngi ci taxaw taxawaay bu am solo waañ bi nag euh, mu mel ni wàll berndeel yi lépp yemb na lépp mbat na daayira bi def nañ ci seen kéemtalaay kattan si suba ba tey wala depuis démb ba tey ñu ngi ci taxawaay bi euh, ñun nag lenn lañ ci jëwrin yi ñu fi teg am nañu fi kilifa nag euh, ñu topp seen i gannaaw waaye euh, liggéey bi lépp lépp lépp yemb na kon di wax nag lépp lu nga xam ne liggéey nañ ko fi rek yàlla na ko yàlla nangu waañu nag at mu jot day am coppite. ci ci ci yokkute bu ne rek ndax at mu jot dañ fi gis avancement bu baax a baax a baax. alhamdulilah bilantiyaai ala bni abdillahi dil bahaai baraatul muxtaari illa ala bi nakaalin yuqfa lil mustafa wajhatu ma qad sarafa bi gayri naa iblisa wa wan sarafa hadamtu baatilan bi aqin fa ولي إليك سسقي داقم ملكت ربي مالكي كليتي حالي لو كعملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من قالف الحق ونلت سولي برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادة ضمن برأني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام متنبي huwa alladi lam ara gayrahu wala araahu fi shayin hadaawana wala muhammadun salla alayhi bi salaam wasiilati loo wali qaadal kalaam faraxanil akramu tafriixan yadum bi annani xillun wa xibbun wa qadim loo xitaabi wa maxal akdaara wali siwaana wajjal qadaaraam hayatanaam halal nida faghlibuum wali siwaanaam saaqiriina anqalabuum tasliimu baaqin qaadan li sawaabaam halal lazim awrasani sawaabaam halal lazi talabam kawniyal qadiim loo salaamaam zil bariyatil qadiim liman loo kulliyati ibaadam hamdi wa man xaalafani abada mulku lazi laysa la mubaayi bi qaadama xaaba anil mubaayi naajaani alalimu walxabiru wajaadalil waasum walkabiru faraanil jamilu ni manaafium alaani almalikum wa waraafium saaqa makaarim bi man qablu naxaam madarati man li yaquudul minaxaam ملكني الملك والمليك والمالك الذي لا تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والوعد لي في رمضان نجزا أجر الذي ما عنده لا ينفد وثللي وما ترى نفد خدمة خير العالمين أحمدا عليه تسليما كريم همدا فرغت القلب والنفس طيبة وبالمكاري بغير ذابة يسر خير العالمين قلمي عليه تسليما مزيل الألم للمصطفى وجهت مالي قادا نظم بلا مدرة فانقادا هو سفيه وهو سجاهم بما ظلمهم والأوجاهم محمد صلى عليه لهم في الآل وذابي ومن والاهم محا بلائي ومحا أمراضي وبردا تنقاد لأغرادي نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا قتلا kon mbokk yi ñu fas yéene ànd ak yéen fii ci kër Baba Coumba ci màggal ak cant gi nga xam ne at mu jot waa daayira wakaana xaqan ñu ngi ko fi amal ànd kook mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bi wajaxtu kulliya bi amdin wa sukur ila waliyil muminina wa zakur وجعت كلي بعمد وسكور إلى ولي المؤمنين وسكور كن يا ولي يا خدير يا نذير للمؤمنين إنك العادي البصير أصبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا زمنا أصبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا سملا عذبت فورا لسوانا كل ملا ليس يكون محسنا يا ذا سملا نفعتنا بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان عفسنا به وبالإسلام فلتحفظ الكل عن الملام قدمت سيدنا سيد البرايا مدى والأنبياء ورسليا من أمدا قد صلاة وسلام أبدا لهم كما أحصيت من لم يعبدا إلى النبي قد صلاة وسلام والأنبياء منصل الكلام على نبي محمد والآل صل وسلم واستجب سؤالي للمنتقى اكتب ما يسره بلا نعاية وخدمتي تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باخيا جعله مختارا نافع صل ولتسلم في أبدا على الذي لك يقود من عبدا اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بالتسليم واذكر كتبيا نافع صل وتسلم باحترام على نبي والآل وصحبه الكرام صلاة ذي العرش العظيم السمدي على نبي وسيلة محمدي صلاة ذي العرش العظيم إبراهيم سمدي على نبي والي والحمدي رد مكائد العداء إلى العداء يا من أباني بمعدل العداء غير جميع أصحاب القرار من المؤمنين والمؤمنات اللهم بل ما قرنا وانظر ما طلبناه إلى روي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم wa ilaa ruuhi xaadimi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ilaa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa sriyatihi wa muridihi allahumma li sama xalaxnaa wa normatnaaw ilaa ruuhi sëñ Isa Cissé wa ilaa ruuhi abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa awlaadihi wa ixwaanihi allahumma li sama xalaxnaa hadiyatan wasilatan ilaa ruuhi sëñ Isa Cissé wa ilaa ruuhi abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa ixwaanihi wa ilaa ruuhi jamiil muslimiina wal muslimaat الأحياء من والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أشياء خيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انظر من نصر الدين واخذل من قتل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين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 mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñoo ngi nuyu mbooleem ñi fi teew ci góor ak jigéen mag ak ndaw di jiital ci nuyoo bi sunu kilifa di kilifa jotaay bi di sëriñ Abdul Karim Cissé di ko ñaanal fan wu gudd ànd gu wér sunu borom tëbb ko kattan ba lu mu yéene ci njaboot gi sunu borom mu matale ko di ko ñaanal ak njabootam waaye di ko ñaanal mbooleem kilifa gi fi teew ak ña nga wu ña nga ña nga ña nga ña ginnaaw loolu nag dañuy sóobu ci programme yi mubasharatan ñuy sàkku leen rek ndax xat na lool te am na ñu war a ñibbi ba Dakaaru am ñu war a ñibbi ba Louga ba Tamba ba fu nekk ci réew mi kon ñoo ngi ñaan mbooleem ko ñu jox kàddu rek nga gàttal ko lool bu mënee am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما أعونك يا مهين وبك نستعين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي بحده فهذا سعيدة المريدية fi amdaahi xayril mursalin alayhi wa ala alihi wa sahbihi salaatu wa salaamun min rabbil alamin ama baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki jullit yi fi teew ñoo ngi nuyu ñëpp di leen ziar te di leen dalal jàmm di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi ñaan a seex Mahamadul Muntaxa Basir yàlla yàggal ko fi te may ko wér ba li nga xam ne <clears throat> moom la yéene liggéey ci toolub lislaam bi rawatina toolub sëriñ Touba suñu borom defal ko ci lu kawe ak njortum mu ànd ko mbooleem jullit yi waaye rawatina mbooleem taalibe yi noonu ko koy ñaanalee suñu baay ji nga xam ne tey moo fi kilifa jotaay bi di sunu baay Abdou Karim Cissé di ko ñaanal mu yàgg fi lool yàgg jiite jotaay bi ci at yu bare bare bare yu kawe njort lool ci barke sel Xadim waaye nuyoo boobu ak ziar ñu koy woyale ci suñu sëriñ Cheikh Alioune Cissé moom Cheikh Moussa Cissé njàmbi borom daaru di ko ziar di jottale ak ziar ci ñi nga xam ne ñoo ko fi teewal di ñaan yàlla wéral ko lool yàggal ko fi te may ko wér waaye neyoo yooyu yëpp ak ziar bi ñu ngi koy jël di ko teg ci loxo ki nga xam ne tey moo fi toog jotaayu Serigne Touba di mbakke nga xam ne tey moo fi Serigne Touba ci jotaay bi di am kontaan ak mbégte lool ci toog bi nga xam ne. la ànd ak ñun ci jotaay bii waaye itam duñu fàtte suñu kilifa suñu sëriñ sëriñ Fadilu Mbàkke moom Cheikh Abdoul Hakim Mbàkke nga xam ne tey mooy jëwriñ ci diwaan bii eh, moo daan jiite jotaay bi mel tey moom bi teewal mu nekk ci ay yitte eh, ay kilifaam ba loolu tax na xëy ne moo ko tënk ba teew waaye xam nañ yitteem ak yëgam ci dëkk bi ñoo ngi koy jot ziar bu baax te di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér te yi muy dox rek xam nañ ni ci toolu Sëriñ tubaab bi la ak ci ay tànki ndigalu kilifaam yàlla na ko ci yàlla may ndam ci barke Seex Abdou Hakim waaye noonu la ñu ziare Sëriñ Alioune Dramé mi nga xam ne tey moo fi toog toogaayu Baye Cheikh Dramé ñu gën koo xam ci Baye Alaaji Cheikh Dramé ak mboolem waa Diagane yépp ñuy wax nag kàdd yooyu yëpp ci kàddu Cheikh Mouhamadoul Basir mi nga xam ne tey moo fi toog toogaayu Serigne Insa sise ma ànd ko ak rakkam Cheikh Mouhamadoul Amine Cissé moom Cheikh Ibrahima waaye ànd ko ak sëñ Abdoulahat Cissé moom sëñ Insa Cheikh Ibrahima Cissé ñu koo xam ci Birame Cissé ak mboolem waa kër Baye Cheikh sise ak mboolem njabootu dëkk bi yëpp ci jëw ci ndigalu sëriñ Mouhamadoul Basir waaye ci ndigalu sëriñ Kéba Touré sëriñ Moustapha Ndiaye ñi nga xam ne ñooy jarbaat ci dëkk bi ak sëriñ Moustapha Cissé ba tey itam liñ ci jotale ci ay kàddu muy kàddu yu jóge ci Cheikh Mouhamadoul Basir mooy ay kàddu cant rekk lay doon kàddu yooyu nag moom lañu ñu bëgg a jotale di muy ay dëkk yu fasantikoo waaye comme jotaay bi dafa xaw a am nu mu tëddee ñoo ngi jéggalu di dog ngant bu baax ci ku déggul sa tur rek ñu xam ne dañ ko bëgg lim ci lim bu gaaw moo tax ba dëkk yi rek la ñuy mën a lim incha allah euh, ñuy jiital ci cant ak ngërëm yooyu ci ñi nga xam ne ñoo yor liggéey bi ci la ñuy tàmbalee muy ci ñi nga xam ne ñoo yor liggéey bi nga xam ne moo aju ci mboolem bis bi di jiital waa cànd cise ak waa njaañeen gu ndaw ak waa kër ilimaan ak waa kër laayin soxna ñu ngi leen di yëgal ne jot nañ seen yëg-yëg ak seen taxawaay ci ba bis bi tàmbalee ba tey moo tax ñoo ngi sant bu baax di leen gërëm kon Cheikh Mouhamadul Basir ak mboolem ay rakkam nee ñu ngi tàmbalee cant gi ci nga ñi nga xam ne tey ñooy waa jaagaan ñi nga xam ne tey seen kilifa la tuddee bis bi di bàyyi alaaj seex bu soobee yàlla kiy wax ci seen kàddu dina leeral taxawaayam ci lislaam ak taxawaayam ci kër Sëriñ Tuubaa insha allah waaye ñu ngi sant bu baax waa Touba Njaay Njaay ci seen teewaay eh, ñu teewal fi Sëriñ Fàllu ak seen taxawaay bu am solo di sant itam waa daaru Kër Mor Xoroja ci ndigalu Sëriñ Aline Cissé moom Cheikh Moussa Cissé waa Cànd Cissé comme ni nga ko waxee ñoo ngi leen di jotal cant lu jógee ci ba Basirou siise ak mbooleem ay rakkam di sant itam waa Njaayeen gu ndaw comme ni nga ko waxee sànq waaye fàttewuñu waa Jaagaan kër Souleymane ba léegi ñu ngi leen di feddaliwaat suñu cant fàttewuñu itam waa Luumen ci njiital Serigne Omar Ndiaye mi nga xam ne doom la ci kër gi ak mboolem njabootu Njaayeen waaye ak mboolem waa Luumen yëpp kenn desut di sant itam waa Kër Laayeen Soxna comme ni nga ko waxee seen daayira bi gis nañ seen taxawaay ci li nga xam ne mooy addiyee ji ñuy dajale di ko tàbbal ci bis bi waaye rawatina ànd bi ñu ànd ak waa daairatu Wakana Haqqan ak daairatul Miftaahul Mafaatul Bisri ci seen takkutoo ci ñetti daayira yooyu ak mboolem seeni nawle yi nga xam ne ñoom lañ bokkal ci bis bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen wax ne sëriñ Mouhamadul Basir nee na gis na seen taxawaay yoral na leen cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem waaye noonu la ñu wéyalee cant di sant waa Kër Maak Thiam ci njiital borom dëkk rawatina sëriñ Jim Thiam ak mbooleem waa kër Baye Alaaj Makatim Thiam waaye noonu la ñu sant it waa kër Tamsir Xoraja ñoom itam gis nañ seen taxawaay kenn desul ñoo leen di sant góor ak jigéen ndaw ak mag waaye noonu la ñuy sant it waa Kër Mady Yacine liñ ci tuddee rek suñu mag Serigne Moustapha Cissé waaw tudd nañ mboolem waa Kër Mady Yacine yëpp di sant waa Touba gis nañ euh, délégation bi fi jógee ak taxawaay bi ñu am bu weesoo ñi nga xam ne ñoom lañ seqal ñii di jarbaat ci dëkk bi ñii di sët ci dëkk bi waaw euh, dañuy sant ña fa jógee nga xam ne kóllëre ak taalibe moo ñu boole rawatina Cheikh Ibrahima Siñaan maa ngi koy jégg lu baax donte que ne bëggul ku tudd turam xam nañ taxawaayam ñu ngi koy dogal ngànt di ko jégg lu baax ci de lu mënta ñàkk la waaye ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax ci taxawaayam ci lii nga xam ne suñ borom tawfeexal nañu ko ñun doomi kër baabu kumba di njabootu mboolem dëkk bi yëpp ci taxawaayam ak ni mu demee xam nañ ko incha allah saa yi ñu mayee ndigalu ñu leeral ko rek. micro bi micro mu dañ ko leeral bu baax bu soobee waaye noonu lañuy ñuy sant itam waa Gambie waa Gambie yi nga xam ne depuis ba ñu commencé liggéey bii. 2005 ba léegi at mu jot jéego buñ teg su déwén saa ñu dëgg jéego bu ko gën a dëgër te gën a pasteefu te gën a gaaw ñoo ngi leen di sant di leen xamal ne sëñ Basiru nee na gis na seen taxawaay bu baax a baax moom ak mbooleem njaboot gi waaye rawat na itam waa Caamen Kër Souleymane ñoo ngi leen di sant di rafetlu seen teewaay di sant waa Dakar ci mbooleem njaboot gi ñi fa jóge ak ñi nga xam ne ci dëkk bi lañ jàngee te nekk fa di yëngu aju ci daairatu Wakana Haqqan ak mbooleem wëllëre yi fa jóge ci diggante góor ak jigéen ndaw ak mag waaye rawatina waa kër Abdou Mata yi nga xam ne ci njiital Serigne Keba Diallo ànd ak imam ba ak oustaz ya nga xam ne ñooy jàngale ci dëkk ba ak mboolem dëkk yi ko wër ak mboolem seeni wëllëre ñuy def ak mu jot délégation bu am solo ak taxawaay bu am solo boo xam ne jamono ju ne dañuy fàggu la nga xam ne moom lañuy bëgg di ko xewloo lépp indiwaale ko ngir bañ a sonal kenn mel na ni kon ñoom xam nañ ne bool dañoo bokk ci bis bi ba noppi jëlaat seen lépp jébbal ko bis bi fas yéene ko ànd ak njabootu dëkk bi rawatina daayiratu Wakana Haqqan ñoo ngi leen di sant di leen gën a ubbil bunt yi di leen xamal ne kon ubbil nañ leen bunt ñu ngi leen di xaar ba tey di leen gën di encouragé ci liggéey boobu te xam ne lu ci waay def sa bopp rek la kon ñu leen xamal ne sëriñ Keeba yaa la nga àndal njaboot gi yëpp a leen di sant rawatina sëriñ Basiru mi nga xam ne mooy jëwriñ waaye fàtte itam waa njaañeen gu mag fàtte wu ñu itam waa kër tamsir xoja waaw ñoo ngi ñoo ngi sant itam waa la kër xalifa cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem mag ña nga xam ne ñoo fa ne doon ànd ak sunuy bàyyi ci toolu Sëriñ Tuubaa bii ànd ak ñoom ci kóllëre ak mbokk ba tey dara wàññeeku ci jamono ju ne dañuy gis ne day yokk waaye ak wàññeeku amu ci noonu la ñuy sant itam waa Ngayen Moussa Gaye ak Ngayen Daaw ñaari Ngayen yëpp ñu leen di boole ak cant di leen wax ne gis nañ seen teewaay ci mbokk ak mbokk taalibe ak kóllëre waaye noonu la ñuy sant itam waa sañc pasi ci seenu teewaay ci mbokk ci kóllëre ci xarit ci lépp rek gis nañ seen taxawaay jamono gi ne day gën di yokk noonu la ñuy woyalee cant gi ci ñi nga xam ne ñooy waa Kaolack ña nga xam ne jógee nañ fa di ay jarbaat ci dëkk bi ak i mbokk ak kóllëre ñoo ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax ci njiital sax Mouhamadou Basir waaye fàttewuñu itam waa Kër Matar Faat daanaka ñoom bu ñu limee jaagaan da leen yóbbuwaale ñoom ak katam ci famille Dramé yëpp rek ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di wax ne gis nañ délégation bi nga xam ne moom la sëriñ bi yabal ñu teew fi teewaay bu am solo teewal ko fi ca na nga xam ne xëy na ñun rafet nañ njortu ne kawe na njortu sëriñ bi leen yónni ñoo ngi leen di jotale suñu cant ca moom di ko nuyu te di ko noonu la ñu sante itam waa Jooson ci taxawaay bi nga xam ne taxaw lañ ko ci rawatina ci waañ bi di mbokki sëriñ Basiru rawatina nijaayam jiitoog di kilifa di sëriñ Jim Yaasin Cissé Jim Yaama Cissé di nijaay ci seex sëriñ Basiru moom it ndeysaan mi ngi koy jéggalu bu baax ci toogaay bi waaye gis nañ taxawaayam ak mbooleem njabootu Jooson noonu la ñu sant itam waa kër Birane Khoraja ak euh, kër ba kër yi bu ñu leen tuddee rek tuddaale nañ kër Mbangu ak mbooleem dëkk ya leen wër ñoo ngi leen di sant di leen xamal ne gis nañ seen teewaay ci bis bi. Euh, ñuy sant itam ñi nga xam ne ñooy am na politique yi fi teew gis nañ seen teewaay ak seen teewaal rawatina Cheikh Mouhamadul Moustapha Cissé di doom ci dëkk bi. di di ñu gën koo xam ci sëñ Moustapha Cissé sopp Xaadim di ko xamal ne gis nañ taxawaayam ak teewaayam ak délégation bi nga xam ne ñoom la àndal ci njiital euh, suñu wóllëre suñu xarit moo du ñas dëkk ñaseen ñu ngi koy sant moom it di ko gërëm di leen xamal ne gis nañ seen teewaay waaye sëñ Moustapha mbay itam fàttewuñu ko moom it gis nañ teewalam ak teewaayam ak mbooleen ñi fi teew di yëngu ci fànn ko ku ci nekk lay sa mébét ak sa bëgg-bëgg ñoo ngi lay ñaanal sunu boroom defal la ci lu kawe njort waaye daayira bii nga xam ne mooy daairatu wakkaana xaqan muy ñenn ci njabootu waa dëkk bi ak ñi nga xam ne ñoo jàngee ci dëkk bi ba génn nekk ci àll bi di yëngu ak ñii di jàng ci daara yi ak fu ci waay mën a nekk ak lu mu mën a jàpp rek bu bis bi weer wi xasee teru ñoom ñëpp dañuy bàyyi seen yitte jublu ci bis bi ba keroog muy weesu loolu it fàttewuñ ko xëy na dana am ko am kàddu ci ñoom gën a leeral seen liggéey ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen xamal ne ñu ngi sant itam sëriñ Mor mbay Cissé mi nga xam ne moo jógee ba Njaareem di doom ci sëriñ Mouhamadou Bassirou Cissé moom sëriñ Mor Mbaye Cissé mu teewal fi xalifa ba di sëriñ sëriñ Cheikh Cissé rawatina Cheikh Abdoulaye mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Mor Mbaye Cissé ñu ngi koy sant ci at mu jot teewaayam ak mboolem ña jógee ci daayira ñoo ngi sant bu baax tey gërëm di jéggalu bu baax ci kàddu yi nga xam ne sëriñ Bas bëggoon nañ di jotale ko lu ci lu ci jotul rek ci ñun la waaye moom amoon na yéene mu gën a yaatu xëy na suñu làmmiñ moo lottu ci wax la ca xolom ñoo ngi jéggalu tey sant bu baax tey gërëm incha allah ba ci kanam aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi nuyoo nuyoo bi nga xam ne moom la nu sunu borom digal diggante jullit ak moromam muy bi gën a gàtt gën a jotal ëpp njëriñ lool gën a baax lool ëpp yiw lool moo di asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñoo ngi jiital ci nuyoo bi ki yàlla jiital ci jotaay bi ñu di ko xoolee Cheikh Ahmad bàmba di ci teg ki ñu fi fekk si mu di Cheikh Abdoul Karim Cissé nga xam ne moo fi desandi yàlla na fi gën a yàgg di teg ci nuyoom boobu Cheikh Mouhamadul Basir Issa ak njabootu Baay Issa gépp di ci teg Cheikh Mouhamadou Cissé ak njabootu Baay Ibrahima gépp ak mbooleem taalibe yi di teg Ibrahim moom Baay Cheikh Ahmad Bamba Cissé ak mboolem njabootu Baay seex gi góor ak jigéen mag ak ndaw ak mbooleemi jarbaat yu góor ak yu jigéen mbooleemi sët yu góor ak yu jigéen mbooleemi doom yu góor ak yu jigéen mbooleemi dëkkandoo di dalal sunu sëriñ yi di sunuy mbokk di sunuy wolëre di sunuy xarit di sunuy sëriñ muy seex Adama siise moom seex Moussa ak rakkam sëriñ Modou mi mu àndal dugg si ci jotaay bi léegi ñu ngi leen di wax dal leen ak jàmm ndax nee nañu ganuk suba mooy dalal gu ngoon ñoo leen fi jiitoo ay minit kon dal leen ak jàmm bu demeewul woon nii de danaa ci am tuuti jaaxle waane nag santaat nañu yàlla bu baax julliwaat ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallama sant Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul man mii de maa ngi wax ci turu waa jaagaan Sader ñu leen di wooyee waa kër alhaaji seex Dramé bu mane nee alhaaji Cheikh dugal naa jaagaan gépp njabootu alaaji Njaga day dugg njabootu alaaji Moodi day dugg njabootu Basiru Xadi day dugg njabootu Basiru Lamp day dugg ak keneen keneen keneen ak waaye nag tey jaagaan ka fa yàlla nga ko dogal muy seex Muhammadul Basir siin mii toog dand naag sunuy waajur lu ëpp ñeent fukki at kon ku ci xam dara la ku ci mën a wax dara la waane tànn nañ ma ngir may nab nabi ba xam li may wax dana jubam déet bu jubee ngeen xam ne ndimbal li ak li ngeen ma wax la bu dëngee ngeen xam ne dama ko doon foraatu te yàlla àndu ca ñu ànd nag ak imaam Ali mooy borom dëkk ba mooy imaam ba mooy xalifa alhaaji seex ànd naag rakkam sëriñ Modi Dramé présentation bi ci foofu rek laa ciy yem sëriñ Mody moom duma ko présenté kenn ci jotaay bi laa yaakaar ndax ku ñaar ñu dend bu ko ca kenn xamul bu ko ca ñett bu ko ca ñaar ñëpp xamul tamit am na kenn ku ko ca xam muy jàngale jàngalekatu alxuraan di imaam ca Touba kon day del si ci soloy bis bi ñoom ak seen rakk yi ñu àndal yëpp ak seeni mag ñëpp na ma ko waxee woon njabootu alhaaji seex ak alhaaji njaga alhaaji moodi Basiru Xadi Basiru Lamp ak waa jaagaan gépp ak nu waay mën a tudd ak nu mën a sant ak noo fa mën di dëkkee rek ci biir jotaay boobu nga bokk kon waa jaagaan ñoo leen di nuyu di leen wax ne ñëw nañu ci li yàlla dogal ñu tuddee ko sunu waajur sunu waajur nag mooy photo bii mooy ñaari photo yële ku mënta liir Baye Cheikh Dramé parrain édition 2021 bi nga xam ne mooy borom tañ laay gële photo bële mu ngi nekkoon 1959 boobu Sénégal amagul indépendance mooy bi mu demee Makka ba ñibbis àndoon ak Cheikh Mouhamadul Moustapha Basir àndoon ak Serigne Babacar Niass àndoon ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Basir booba ñeent fukki at ak ñeent la amoon doonoon ku yàlla teel a def la muy def ca moom ndax li ñu boole balaa maa ñëw ci sëñ Issa damay waral wala ma wax li nga xam ne moo taxoon ñoom ñaar ñu doon yi mën a ànd te yàlla nose leen ci benn dëkk parce que bu ne benn dëkk fii ma toog ak sama kër fa ma dëkk cee jaagaan lu mu bari bari 3 kilomètres lay mat. te balaa nga faa dem di nga xuus ak kër goo xam ne rakku alaaji seex a fa nekk muy alaaji moo di mu digaloon ko sëñ baayam muy mam Balla mu sanc fa ci ndigalu sëñ Tuubaa kon ñun ay tool lañ yor rek benn quartier la benn goox la benn dëkk la alaaji moo di nekk fa ak rakkam alhaaji Abdou Cissé bokk ak waa daaru yii di seen waajur yal na yàlla yeesal yërmande ci ñoom ñëpp alaaji abdu bokk ak suñu baay alaaji moo di ndey bokk ak seex Moussa baay ngeen xamee ko noonu ñu tuddee koo xam ne nag ndax bu ndox bàyyiwul yoonam rek yoon dana jaar fam daan jaar du am tegg Ibrahima Siñaan mi fi génnee léegi bés bii la ñuy wax wa kaana haqqan alaynaa nasrul muminin bala ñoo wax ñëw ca aaya alquran ba bala ñoo ñëw ca xasida ga ko sëñ Tuubaa tënke ak na mu ko tënkee nga xam ne ñëw na fa indi la mu indi wa kaana haqqan gi mu indi ko ñetti yoon fa stajaaba lahum rabbuhum mu indi ko fa ñaari yoon indi ca mujj ga falaa taalamu nafsun maa uxfiya lahum min qurrati ahyunin jazaan bi maa kaanu yaxmaluun duma fi nekk di firi may tafsir ñi jàng xam nañ ay aaya alxuraan sëriñ bi léppam ci alxuraan la ndax daf noonu lawla alquranu wa sunnatu wa manaafiil muslimina ku ci mën a génn nag na wax ne maanaam bokkuma ca jullit ña maa bittu fi dunya laylatan wahidan bu dul woon alquranu ji yàlla ji ak sunna si saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bii ak jëriñ jullitu yàlla yii duma fanaan ci àdduna doonte ne benn bés la man xaadimu rasul kon muy lan bu ñuy dëkkee fii alaaji seex dëkkee fii ci ay ay mbokk ay baay ay maam yoo xam ne bokkul woon ak ñoom ci tarixa bii ñu nekk waaye ñu doonoon ñu jàmbaare mën ngaa lim juróom-ñaari maamam yoo xam ne ñëpp ay aafisul quran la ñu woon moom muy borom alxuraan lool nekkoon taalibe sëñ Tuubaa lool nekkoon nituk jamono lool baaxoon ci biir baaxoon ci biti zahir ba bu nee tëll faw ñu laaj ko ci mbooloo boo jëflanteeg moom ci biir nag gën a xam ne ndekee ka ma gisoon mm, biir gee dàq mu ànd ay waajuram ci loolu dinañ ci ñëw ki sañ ci jaagaan gii ginnaaw bu ko séeréer yi sañcee ba delluwaat jaagaan barka muy Sader Codé mook daara ñoo bokk ndey ak baay daara moom daf noon daara muurituwul tiijaanuwul laayanuwul xaadiruwul daara baqara ak minal jinati wanaase doy na ko sëriñ ca nekk di jàngale bañ tuddee ko daara aliyun la tuddoon moom lañ tuddee imaam ali mii sëñ tubaa ne malakanil quranu tamlikan aw qurana ya yadum bi an annani xillun wahibun wa xadim suñ borom mooma moom loo alquran moom gu sax te man maay xaritam maa dib soppeem maa dib liggéeykatam daara ma waxoon ne murituwuma xaadiruwuma baqaraak minal jinnati wa naasi doy na ma mu dem ba am doom tuddee ko habiballahi ñu di ko woyee balla habiballah moomu mooy waajuru kii balla ñëw dem seeti sëñ tuba gànnaar sëriñ bi ne ko Balla mu ne ko Mbàkke mu ne ko kaay ma jox la fas woo xam ne boo ko waree yàgg moom ba biir aljana mu ne ko mooy lan mu ne ko bu sa dimanche tàmbaleel Baqara ba Maayida altine nga tàmbalee Maayida ba Yunus talaata nga tàmbalee Yunus ba Isra àllarba nga tàmbalee Isra ba Soxara alxames nga tàmbalee Soxara ba Saafaat wala Majid samedi nga yeggalee ko Majid ba Naas mooy fas wi nga xam ne man Ahmadou Bamba maa la koy jox yow sama taalibe boo ko waree yàgg moom ba biir aljana kon sëñ tubaa bu nee moom naa alxuraan bàyyi waxoon la ne ca saalum doom demaat ca gànnaar fekk fa sëñ tubaa mu wax ko lii kon mooy la am alxuraan lam ñu dénk sëñ tubaa lépp lu mu wax boo cay xiili xaala waxu ko lépp lu mu wax nga man bu ma ko déggee moom laay gën a gëm ni alxuraan ngeen jégal ma wala ñoom ñaar laay yemale ndax léppam alxuraan la kitaabun bihi narju minallaahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa oxra minal kar bi la ñu waxoon ci la ñuy yaakaaree muccuk àdduna solution wu àdduna alxuraan la solution alaaxira alxuraan la nit bu fekkee li ngay musal génnee la ci njàqare defal la yërmande boo ko génnee rek mënatoo dem waxa wa issi wa rifaati wa kunuusi wa bihi artajil qiyaada al aruni tamassaktu bil hablil matini murattilan wa bil urwati al wusqa lati nuuru maasikan bil kitaabi maska daririn bi yaddil qaa'idil basiril mu'ini bu ko defee maam Balla moomu dem ba yegg ci sëriñ bi xawoon na wax loolu ñuy wax ñàkkuk njaboot yara dal mu jàmbatal ko Ahmadou Bamba Ahmadou Bamba defal koy ñaan ne ko demal boo demee bu doom jaganee jamono tuddee ma ko mooy jëmu ji Cheikh Ahmadou Bamba la tuddoon 1914 ba 1959 ñu soppil ko ko ne ko di ko wooyee alaaji am na ñooñ waaye Cheikh Ahmadou Bamba Dramé la tudd mu aji màkk ñëw ñu di ko wax alhaaji seex Dramé tur woowu nag moom la ñëpp xam ndax ñi fiy mujj seeni at bariwuñ diggante juróom-benn fukk jëm suuf loolu rek la ñuy mën a xam ndax ku demoon cinquante neuf ak léegi soixante deux ans la bu ko defee muy jëmm ji li ñu boole mooy lan yàlla yonentu bi dëkkuwaay alxuraan ak sëriñ tubaa ak bokk ak bokk bokk gu jaxasoo gu tar lool maa ngi koy wax démb Cheikh dul basiir ki moom bés bi ak ki ñu ko tuddee dafa bëri yu ñu niroole danaa ci comp tuuti tuuti ndax xat na tàmbalee ma waaye bu dooyee rek ne leen ma doy na du ci yokk leen ndax Ibrahima Sañaan mii fi jóge waa juróom wu jigéen waa juróom ka ko jur moog alaaji seex mi ñoo bokk ndey ak baay te Ibrahima Sañaan moo toog ci Amérique woo téléphone doomi alhaaji seex bii bu mu tuddee sëñ Moustapha Basir gis nga mbir yi ni muy ñëwaatee di di gën a dëggal woo ko téléphone ne ko Moustapha moo woo moo moo woo moo woo Baye Essa astaghfirullah al nga nekk ca kër Kaba Cissé yal na yàlla yeesal yar na ci kawam ca Ndakaaru mu ne ko waxal Moustapha mu alhaaji seex na ma woo Moustapha ko man de daaw woo kilifa ñemewu ko a woo mu ne ko nee na dalaa soxla fekk booba Serigne Mourtada rahimahullahu jugee na fi ci 2004 ñu ne nag na murit ñi takkatoo def lañu mën wala lañ yaakaar ndax sëriñ bi moom noppi na ni yonent bi noonu la noppee yàlla noonu la noppee wali kulli ummatin ajalun isa jaa ajaluhum la yastaxiruna wala yastaqdimoon booba nag xërug murit ndeysaan sëñ Mutala dem na ñu ne benn doomu sëñ Tuubaa fi nekk dañuy dajaloo di jàng ay wakaanaa xat at mu jot di ko ñaanale sëriñ Saaliw mu yàgg fi mbir mi di jógee ci ku ñuy wax Khalil Fall di dox ba yegg si ci Ibrahima Sagnane mu wax ko ca Memphis ne man de maa ngi am lu ma doon liggéeyal sëñ Mourtala waaye lii danaa ko def suñ borom dogal mu woo Baye Esa ca bis booba Baye nettali ko ñuy waxtaan ba yegg ca loolu mu nettali ko Baye Esa ne ko jox ma ko muy bisu tey bii wakaanaa xan bii jox ma ko boo ma ko joxee danaa ko jàpp ba yomal xiyam Ibrahima Sañaan ne ko man sañu ma laa digal mu ne ko maa ngi lay ñaan nga jël ndigal ci kaw ndigal maanaam nga digal ma yow doom jii di jarbaat bii nga digal ma mu door ko nangu mu jox ko ko mu ne ko Cheikh Ibrahim Cissé mu ngi ma doon laaj bés juróomi at ci liñ ma nettali waaye bésama ngi 2004 moom defu ko ca la 24 de et puis li gën a doy waar mooy li mu coïncider la 24 décembre. ndax ku ne xam na ne tubaab yi nee nañu 24 décembre ci la Seydina Isa juddu woon donte ne am na ñu gëm am na ñu gëmul waaye ñun jàppuñu ci weeru wolof indi nañ ko ba indi ko fixé ko ci 24 décembre bi rek. ba pare indi waat ko nag tur ba ko moom di Isa te at yu njëkk ye tabaski lañ ko daan def te tabaski la fi la fi la fi la fi la fi sëñ Isa jógee kum fi bàyyi Ibrahima Ibrahima lu mu représenté ci ci tabaski. ah. bu ko defee yooyu yu mat di jàngat la di mat a seetlu mu def ko 2005 wala 2006 2007 jugee fi sëñ Ibrahima yor ko 2008 2007 2008 2009 mu jugee fi ñoom ñaar niroo gi ma lay wax moo di alxaaji seex mii rakkam bi sësoon ci moom rek ñu di ko wax alaaji njega nga mën koo limee tey comme Baye seex mii Seex Ahmad Bamba mii ak Baye Issa mii fukki at la ko jiitoo ci biir suuf Baye Cheikh mii juróom-ñeenti at yu teg ay weer la jiitoob Cheikh Issa ci biir suuf 2008 la fi jóge Baye Issa jógee fi 2007 yàggul dara bu mu fi jóge ka toppaat ci moom jógee fa muy Basiru Xadi mañ tegoon jaagaan donte ne toog na fi juróomi at waaye sëñ Ibrahima ñaar jàpp ñett la fi toogaat dem seen mbir yi day gën di niroo rek ñu bàyyi fi seenub taaw seenub taaw baawu leen fi muy sëñ Daara Assane muy sëñ Daara Assane bàyyi rawewu ko lu bari ñim fi bàyyi nag moo di ñan mooy njaboot gi ku des dese képp ku fi des danga nga fiy des ak li fi ne li ñu boole xam nga moo di lan moo di ñoom ñaar pas-pas Baye Issa nee na ma Serigne Basirou nee na Baye Issa nee na ma laa wax de ndax man ñi ma xamul bu ma yeboo ma wax ñu xam ma Xadim Mbàkke mii mooy sama waajur ngeen xam ko ñi ko xamul ñu xam ko samay rakk yëpp baay seex ñoo leen jur kon daan naa fi ñëw nekk gu nekk taalibe gu gàtt gàtt di fi ñëw bàyyi Issa nee na ma Serigne Basiirou moo ñëw jaagaan Cheikh Fall xataa ba yéeg ci kaw camion ba di yëkkati mu def fa juróomi fan wala juróom-benn ñu lalal ko ci penc mi mu toog ci piliyaan jublu penku ñu lal basang alaaji Seex toog ñeneen toog mu woolu Issa Cissé mu ñëw mun ne ko Issa mu ne ko Mbacke mu ne ko Esa mu ne ko Mbakke mu ne ko Esa mu ko Mbakke ba mu ne ko lépp loo may joxati wala loo may waxati jarul ngay ñëw joxal ma ko Alaaji Seex boo ko waxee dana yegg si boo ko joxee dana yegg si kon ñoom ñaar li leen boole day mel ni la naar gànnaar ba doon laaj Serigne tuuba sa taalibe lu tax ñu takkatoo doon benn foo gis benn murit moroomam gënal ko keneen. sëriñ bi moom dafa nekkoon koo xam ne romboon na hakim mënuñu wax hakim la mais sëriñ bi moom kenn mënu koo xayma cam soo ko xiyaas mu yées ko te moom balance boo ko wutal mu fees ko wala barab boo ko wutal mu fes ko sëriñ bi daa jël kayitu junne rek boole ko ay naar ñetti naar naar mënta wóolu moromam kii yor junne bi fu mu tu fu mu dem rek ñeneen ñi dar ngu topp ko mbir mi mel ni théâtre sëriñ bi na waa yéen lu ngeen di toppante ñu ne ko da nga ñoo lu ñu séddoogul mu ne ko samay taalibe tamit dama leen a boole lu ñu séddoogul te yow mal xiyaam lañ koy mën a séddoo moo tax taalibe murit piir bu contesté beneen murit muritam nga muy woote diggam ak Serigne Touba wéerul ak ku mën doon nag ndax sëriñ bi moom am na laaxu caaxaan am na laaxu soow am na ndawal am na jën am na lépp te lépp mu ko boole woon ci biir këram kon nag xam nga nooy def sëriñ Saliou daan wax naan taalibe bu nekk la nga baax le laa bokkale ak yow rawatina jullit la nga bon le bokkale ko kenn ñii ñaar bàyyi saa daan na wax naan jàngali ji leen gone yi jàngali ji leen gone yi jàngali ji leen yi ba alaaji seex daan toog ca jaagaan naan gone gu tolloog noppi mbaam ku ko ji sama kër na wax ma ko gone yëpp yóbbu leen ca daara yi islamisé ay turu njabootam islamisé daara ku sonn ci alxuraan la ndax kër gee sëñ daara moo di nekk ca Kaolack ba mu koy ba mu koy am di ko tabax boobu kër jafe na ci Saalum ci àll bi sax waxuma la ak ca kawlax tabax ya ba léegi daanuwul te man mii ñoo ma yoon ba léegi amul benn jafe-jafe ngir taxoog sëriñ Basiiru ak taxoog sëñ Moustapha Basiiru te magoon sëñ Moustapha lool fukki at ak ñeent la ko mage woon ku leen gis ñoom ñaar jàpp nañ ñoom ay mag ak rakk lañ ñu daan ànd guddi ak bëccëg di sëriñ Touba ñibbee aljanna Cheikh dul Basir di ñëw Saalum sëñ Moustapha Basiroo ko bind téere bi mu bind jaar-jaari sëriñ Basiru fu nekk sëriñ Basiru da ko naan demal bërëb sàngam boo demee di nga fa fekk diw demal bërëb sànka boo demee di nga ko fekk diw demal jaagaan boo demee digganteem ak Passy juróom benn kilomètre la yu teg tuuti noonu la ko ca bindee di fa fekk alxaaji Seex Dramé sëñ Moustapha Bassirou nee na sëñ Bassiroo ko wax loolu ne moom foofa la jaar ba suñ borom dogal nag mag gi ñëw sëñ Moustapha wuutu ko moom tamit tànk bi xaw a diis bàyyi alaaji Seex di dem di ñëw bàyyi Abdou mii du bëgg ma wax ko nett li nañu ko démb nee na dem nañ tiib di liggéeyal sëriñ Bassirou ca tool di bay wala ñu doon déq nee na sëriñ Basiiru nee na ci làmmeñam la déggee mu ne léeg nga gis nit yeewu ne xippeet aljana te du xam lu ko fa dugal ñu ne ko lu la fay dugal mu ne su boobaa ña nag woo xam ne ñëw na ci tool bi lekk ci gàncax gii ñu ren di nag wa nit lekk ca ndawal ba sax mën na ko yóbbu aljana mbaa mu naan ci ndox mi ci déeg yi wër tool yii ñu ratt ca meew ma nit naan ko mën na ko yóbbu aljana masamaak ñiy ñaqate yàlla tax sëñ tubaa daf ne waqdi hawa ijal lazina daamu fii xidmati wahab lahum maaraamu fajal aajooy taalibe yi nga xam ne dañoo sax ci di ma liggéeyal te nga may leen la ñuy wut waxul nag maye la nga wut nag du jàggan ku bëri milliard foofu nag la ko jamono bi yóbbu léegi xam nga kuy ku tekki mooy ki am doom joo xam ne dund na juróom-ñaar fukki at wala juróom-ñett fukki at te sa def lu naqari suñu borom waaye jamono jii ku sa mbubb rëyul sa kër rafetul sa oto rafetul mënoo maye junne wala ñaari junne loo dugg yaa ca dugal sa bopp waaye nit ña génnee nañ la ca del njëkk a wax del mujj a wax tey njëkk a nopp sëñ Tuubaa moo ne haasa samaanu aqbahu samaani li kasratil isyaani fil buldaani tey la mooy gën a bëri ci lépp ndax dañ ko daan indi nit daan wuy ji takk saret dem di wuy ca post ba ñu wut benn téléphone ci koñ bi koñ ba yëpp di fa wuyoo ñu wut benn tele ci dëkk kër gi génne ko ci biti ñëpp di génn di ko seetaan ba ñun taalibe tey tele yëpp a ngi ci biir kër yi tele yaa ngi ci biir poos kenn liiratul journal kenn defatul dara boo bëggee baax mën nga caa baax waaye boo bëggee bon mën nga caa bone te la ëpp ca ña ko defeet nag ñoom la ñu indi moo di ngir nit ñi mën cee bone dafa am benn abe bu nekk Bruxelles muy capitalu Belgique quatre 2019 bii dafa ne nañu def attention bu baax ñoom tubaab yi ñu ne lan la mu ne ndax dafa gis ne prénom yi am ci at moomu yëpp téeméer boo jël juróom fukk yi ak benn turu Mohamed lañ am buñ ci teelu la jóg nag d'ici trente ans Europe yëpp dinañ ko islaamise maanaam fii ak fanweeri at Europe yëpp dinañ nekk ay jullit ñu ne ko nu ñuy def nag te ki ko wax abbé boo xam ne njiit la ci église bi ñu ne ko nu ñuy def kon mu ne nañu fexe ba teel a installé fo ak mbub mbaay ak ñàkk fayda xale yi léegi koo ci lu xale ndaw ndaw bu amee ñaari at sax da koy tàcculoo mu fecc wala bu jëlee téléphone taal ko mën caa fecc kon lañ doon wax ñu ngi koy bëgg a réussir sëñ Tuubaa ne fa lay sa yujabu sawaadul jismi safaatal fata wa suwal fahmi dëkkee kaw wala nekk nit ku ñuul wala ñàkk jàng moom tax nga ne yow mënu am dara warta waral xel mu gàtt warta waral mën a ñàkk institution yi nekk ci àdduna bi yëpp foo ci di dem nit ñu ñuul ñaa nga fa raw tubaab yi lool ci xam-xam waaye ñàkk fayda lool ci liggéey bi di mu di karawaatu di dem séminaire di yor ay compte bancaire ay milliards te doo ci joxe asaka doo ci saraxe fi sabilillah te ba fii may wax ak yow réew mi liggéey guñ fi puso suñu àll bi li muy bëri bëri bari garab kiir kirna bi ñu ngi koy importer Indonésie bant bi ñu sekkar ñi ko bantu almet ñu ngi koy jëlee Suède ku jël kalmet bu ndaw bi di nga ci liir ñu bind ci Soudan moom la anglais di wax Suède kon ñun luñ defagum lu dul ñi fi nekkaloon yàlla bàyyee saa bi muy fàkk fii wala bi mu fiy nekk ak waajuram ak i rakkam ñu dar ko mu nekk ay liet naa ñu nekk ay liet naa ñuy dem ca toolu sëriñ ba di ñëw di dem Touba di ñëw di dem fu sëriñ bi mën di woote di ñëw di jàngal alxuraan duura ji di takk waaye leer leeru alxuraan mënatu la fay ñi fi nekk kay ñoodul xam nan lañ koy jàppee wala nan la ñuy def ba jëriñu ja waaye nag bu fekkee intention bi dafa raw nag maanaam xel bi maanaam bëgg caa am dara dafa jiitu kon duñ ci mën a am dara ñoom dañ doon def te yàlla tax yonent bi daf na ifalil xayra war mi fil bahri defal lu baax sànni géej mooy boo defee lu baax fàtteel am suñu benn woykat bu ñuy wax juha bu doy waar yàlla dogal am koo xam ne da doon lab ci géej mu dem génnee ko ba teg ko ci tefes gi ne ah yonent bi de nee na defal lu baax sànni géej mu jëlaat waa nak ko ci biir ndox mi ñu ne ko déedéet du loolu de defal lu baax fàtte lañ la wax yàlla may leen lii yàllaa taxoon yonent bee taxoon sëriñ tubaa taxoon alhaaji seex al baay isa alhaaji njaga baay seex ba ci baay abdu mii net li na ma ne bi baay seex maram di dem quartier sama baay la ko dénkoon alhaaji njaga ca jaagaan jël baay ibrahima yóbbu ca alhaaji sëriñ kon li ñu boole moo ëpp lii aw askan boole wuñu ca démb lañ àndoon ca alastu bi rabbikum ga lañ ànde woon ndax booba la Baye Issa waaw alhaji seex ne waaw ñu lan wala alhaji seex na waaw bàyyi Issa ne waaw ñu ñëw nosewu wat ci biir saalum gi bokk suñu saalum bokk suñu lépp ñoom ñaar de kenn ku ci diina mos a jam amul kenn ku ci taalibe mos a jam amul kenn ku ci mbokk mos a jam amul ci ñoom ñaar rawatina alhaji seex ndax moo ko gënoon di dox moo ko gënoon a jaxasoog niti àdduna yi waaye daan nga ko gis jàpp ne sax àdduna naa ci nettali lu doy waar moo ko waxee dana am ñu ko xam jëflante bu dox diggam ak tubaab yi ñañ doon wooyee tubaab ci boobu jamono luñ waroon a tabax jaagaan tabaxuñu ko fa ngir retard ay waxtu wala ay minutes yu mu waroon a teewee te defu ko ba mu ñëwee gouverneur ne ko alaaji seex lale dootuñu ko def jaagaan fële lañ koy def alaaji seex ne beneen dëkk buñ ko def budul dul jaagaan du jëriñ loolu ay million la woon tabax bu rëy la woon ba fii may wax ak yow yéen ilaa mi naa asa jëriñagul kenn dogoom la woon ak Serigne Touba. waaye Issa nee na lu waay bëri bëri xam-xam. lu waay mën a mën a mën a werd lu waay mën a mën a amub sëriñ hmm. bu ma weeranteeg yow donte ne du weerante ndax sañ sëñ Tuubaa nee na haqiqatul miraay inda man dara juhudu aqin ba dama xat saara weerante moom dëgg-dëgg mu ngi tàmbalee ci bu gannaaw bu dëgg feeñe te moom du weerante waaye saa bu ma ameeg nit wax ne am ak indi nee na la ma wax la yàllay def ndax saa waaj laa signé loolu ba pare te tàmpe na ko ah. ak koo mën di doon bàyyi saa nee na bu ma weeranteeg yow la ma wax man ndéem ndéem wax naa ko rek sama waa ji ca lay nekk ah. nee na ma xëy na sëñ Abdoulaye woo ko mu toog fii bëgg a dem dogu na ne du dugaat ci biir kër gi nee na di xaar Saliou Diagne su ma juumul yàlla na ko yàlla yeesal yërmande ci kawam moom tamit nee na ba mujj gi mu xaw a naaj te nee na dogu na ne du dugaat ci biir kër gi mu ne nañ ko indil cere ji mu ndekki ci buntu kër gi am boromub sareet bu ko romb jëm pas yi jaar ne nee na xam na ne waa ji li ci xel mi du yëfi nit mu ngi naan góor gi est ce que tàgguwul ak sagoom wala nangam mu ne ko hee kaay mu ñëw am ku ko ko dogal waaw nee na mu ne kër gii ma toog maay borom cere jii maa ko maa ko yetti dofu jinne jàpput ma dara dalu ma damaa dogu ci bëgg dem Touba dogu ne du ma dugaat ci sama biir kër gi ñii donc la demee moo tax nga romb ma nii te ñoom ñaar nag ñoo doon benn ci lépp nag ndax li leen boole daal mooy bàyyi Muntaxa bàyyi Moustapha bàyyi Abdul Hakim bu ko defee nag li ñuy tënkee mooy sëriñ bi ñun ay doomu aadama lañu rombaguñu ko mhm. ay ndaw a ngi fi ak ñu yamamaay ak i mag mhm. waaye nañu gëm ne bàmmeel gee ñee nekk caaxaan du fa nekk ku la ko mën di dig day wax ko neex ak ku mën di doon ak ku mën di doon sëñ Tuubaa nee na tallaahi maa ngi giñ ci yàlla te moone ne mag sallallahu alayhi wa sallam moo ne man kaana alifan fal yahlif billaahi aw li yasmut barke sëñ Tuubaa barke Cheikh Ibra Fall barke sëñ Abdu dara du ci giñ booy giñ giñal billaahi wallaahi wa tallaahi wala nga noppi sëñ Tuubaa nee na tallaahi laysa yanfa'u sax sa xadaa inda ululi ramsi yi xayrul hudaa wala siwal hudaa maa ngi giñ ci yàlla ne dara du jëriñ ab jëmmu ëllëg buñ ko wàccee ci biir bàmmeel lu ak jamono jii kuy wax nit ñi nag leen wax nañu wàññi matérialiste bi bëgg àdduna gi bari na kon condition yu ne nit a nga cay dee. gore di gu nekk nit a koy wane. ci daraja ak alal te nag suñ borom noppi na ku jub jàng xam nangoo jaamu yàlla nangoo liggéey sëñ Abdoulaye daana wax naan àdduna baaxuwul jag waaye dana tane. dana tane mooy lan danga am kër gu baax goo mën a suturloo da nga am soxna yu baax da nga am waruwaay yu baax mën caa nekk di def te yàlla tax bu dul loolu nag liggéey li koy maye sëñ Tuubaa nee na. man de xamuma dara ngay àdduna ju liggéey mën ta maye waaye neew ma amul waaye amul sama kër man képp koo xam ne nag am na sa kër wala gis nga fu mu am nee na nga dem fa man iñaanewu ma la ko waaw nee na gisul tamit dara ngay àllaaxira yoo xam ne mm. jaamu yàlla mënu koo maye nee na tamit amul këram bëri na nag ñoo xam ne boo waxee ñu ne la sëñ tubaa moo ne wa kasiran xayraati azal baladi wa risqahu wal takfi annaka di waaye sëñ tubaa moomu de moo waxaat ne yaa ayyuha sibaanu la sibyaanu la tastaxilu anil hudaa bil ulumi saxilu fa saxilu bil ibsi wa tilawa wajtanibu a saxawa te moo waxaat ne tamit yaa maasara subaani in xiftum xajal fa xaddimoo taalluman ala amal yéen waxambaane yi bu fekkee da a yaakaar ba da ngeen a ragal gàcc ëllëg jiital leen xam ak jëfee xam ilmu wala hamalu jawharaani li xayri ya daareeni yajlubaani xam-xam ak jëfe xam-xam daal mooy ñaari wurus yi nga xam ne day teral nit fii ci àdduna moo koy indil yiwu àdduna ak yiwu alaxira sëñ tubaa nee na rajaau jannatin bila taati bi sunnatil maahi xururun yaati yaakaar aljanate nangoo topp sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na lum yàgg-yàgg ay wor la yoo xam ne day ñëw rajaau hubbullahi maa buxdi rasul safaatun maa xururin wa qufur mënoo bëgg yàlla bañ yonent bi alquran moo ne qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allahu sëñ tubaa nee na wala tuwaqishum bima qad ajramu fi sirri wal jahri fa antal akramu bu leen jàppee yow yàlla nag tooñ yi ñu lay tooñ ak mooy gi ñu lay mooy ci lu nëbb ak ci lu feeñ ndax ndax yow yaay yàlla nee na nag bisimilah wasalaamaaleykum wa rahmatullah ak mboolem kilifa yi toog ci barab bi di ci cité ku mel ni Serigne Aliou Dramé mi nga xam ne ñoom ñooy bis bi ak maam Bachirou mi nga xam ne mooy seen kilifa ak mboolem njabootu Dramé dimb gépp nee na mu ngi leen di sant di leen gërëm góor ak jigéen mag ndaw waaye nee na amul lenn lu muy jottali mooy cant ak ngërëm di ñaan bis bi bokk ci bis yi gën a barke ci àddina di ñaan bis bi bokk ci bis yu gën a sedd ci àddina di ñaan bis bi di fajug ajo képp ku fi teew nee na képp ku fi teew ngay jigéen soxla boo fi indi yàlla na ko suñu borom faj ci darajaay Serigne Issa barke si Ahmad Bamba nee na daal kàddu yi amul lu mu ciy guddal lu mooy sant ak gërëm di ñaan xam ne yéenay mbooleem ku fi teew lu baax rekk leen ñor lislaam rekk leen ñor ak bokk dong leen ñor ak benn képp leen ñor nee na mu ngi sant di gërëm kàddu yooyu la waxoon ne mu ngi koy jottali di jox Serigne bi ñaan ñu yeewee ko ba déwén waaye nag mu ngi beral ak cant waa ak waa dëkk bi yëpp di ci jiital doomam Cheikh Mamadou Basir ak njaboot gi ci suuf yëpp waaye ne na mu ngi beral cant waa di ñaanal sëñ Mountakha Basir sunu borom kàttanal ko takam may ko ak yàgg ak wér ak mboolem taalibe yëpp ak mboolem jullit yépp sëñ bi nee mu ngi leen sant di leen gërëm sëriñ bi nee na barab bi day barab boo xam ne dafa am jëwrin muy sëriñ Fallou Mbacke mu Cheikh Abdoul Hakim way juram nekkoon fi sëriñ Abdul Hakim sëñ Basiiru maamam dëloon ko fi mu yàgg fi lool nag mu ne moo tax barab bi saa bu fi ñëwee xolam day sedd yaakaaram day gën a yokk di gën a dolleku ndax ñaan yi fi kilifa yi jiitu woon ñaan mu ne wallaahi alxasim ñaan yooyu day gën a jëm kanam rek waaye du del gannaaw mukk di ñaan barab bi mboolem ku fi nekk sunu borom guddal saw fan te may la ak wér ak fajug aajug biir ak gubbiti ne sëriñ bi nee na yàlla na nu yàlla saxal ci ak taalibe nee na sunu borom danoo bind ngir jaamu yàlla nee na mu ngi ñaan sunu borom mi nga xam ne dara tëw ko sunu yaakaar ji ak di sunu wéeruwaay mu sëñ Muntaxal Bachir nee na na ko mbooloo mi yépp ñaanal mu yàgg fi ak weer ndax naalam bi mu naanal lislaam sëriñ bi nee na xolam sedd na guyu ndax jataay bu mel nii ci aw tund nee na day seral ab xol xolub jullit sëriñ bi nee na lu mel nii rek la sëriñ bi bëgg alquran ak sunna sax ci ak taalibe sax ci jaamu yàlla ak bay dundee loolu la seriñ bi digle woon loolu la sun borom digle wa maa xalaqatul jinna wal insa illaa liya'buduun sartay sëriñ jàjj ba mooy ba jàng bay joxe ngir yónneen ba sëriñ bi nee na wallahi alxasim sëriñ bu def li aw siraatal mustaqim boo ko deful jaare jahim ne xiim yàlla nañu ci yàlla musal sëriñ bi nee na xol sedd na guy yàlla na son sëriñ tubaa nangul nu te gàttanu nu boppam nee na beneen bi sëriñ Moustapha mi doon wax ci kàddu sëriñ Aliou muy jiite mbooloo mi nee bi wax ne waqadil hawaïj allazina daamu fi xidmati waab lahu maaraamu nee yàlla nañu sëriñ tubaa tàbbal ca loola sëriñ bi nee na wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fu waaye toll na tàllal sëriñ bi ñaan na ñëpp wax amin amin ya rabbal alamin mbokk jullit yi mbokk taalibe yi lii mooy li nga xam ne moom lañ leen jëlee woon fii ci kër Baba Kumba tey jii aljuma dëppoog le 24 décembre 2021 ci màggal ak cant gu nga xam ne at mu jot dañ ko fi amal te ndigal li bàyyi ko woon ci sëriñ Saalihu Mbàkke mu santoon ko sëriñ Insa Cissé cant gi nag ñu dooroon ko ci atum 2005 loolee ñu koy wéyal ba ci atum 2021 bi di ñaanal cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ñaanal mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ñu yàgg a taxawal bis bi ànd kook mboolem taalibe yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.